Euh, nan nga mën jàngatee aussi réaction wu euh, ñi nga xam tey ji ñoo di ay àndi jàmmam bokk coalition mën na jël exemple ci euh, Barthélemy Diaz mm-hmm. ah, bi ginnaaw procureur bu mu sàkkoo daal di koy placé sous mandat dépôt mhm. yóbbu dossier bi euh, le 30 pour rek nu daal koy euh, atte mhm. ban ko si laajee dafa ni du commenté euh, li nga xam ne nag moo di décision procureur ndax moom mhm. jàpp ne du mbirum procureur mais décision bi dafa jógee ca kaw est-ce que tey ji yaakaaroo ni mbirum Bougane Gueye bi dafa am ku laaxu ci ginnaaw pour rek jéem tey li nga xam ne nag mooy tànkam laaxu ci ginnaaw parce que buñ doon laaxu ci ginnaaw gars dinañ laaxu ci ginnaaw pour leneen waaw defe naa ne Bougane Euh, li Barth wax mooy dañu dafa am ku laax ci ginnaaw j'aurais bien aimé sax peut-être nga liiral gars yi exactement euh, le le le communiqué. Uh-huh. bi nga xamante ne je sais pas wala article bi nga xamante ne suñu naataango suñu naataango yi moom lañu ci def. bu ko defee ñu ñu mën a analyser le les uh-huh. propos de de Barth. alors uh-huh. moom bon ko laajee ci li nga xam ne nag moo di euh, ci décision bi. Euh, dafa daal di réagir sur le placement sous mandat dépôt de Bougane Gueye Dany la tête de liste nationale de la coalition Sàmm Sa Kàddu n'a pas mâché ses mots je ne commenterai pas la décision du procureur parce que la décision ne vient pas La décision vient d'en haut et vient particulièrement de celui que j'ai euh, baptisé Mimi. mooy Ousmane Sonko. ah, ah <laughs> parce que nee na mooy manipulateur incompétent euh, beneen kàddu bi je pense mooy. Euh, euh menteur ak je sais pas lu mu lu mu defaat. voilà qui a passé tout son temps à mentir aux Sénégalais Bougane est un otage du régime de Mimi. il euh, dérange le régime c'est un candidat sur une liste validée par le conseil euh, constitutionnel. Mhm. loolu euh, mooy article bi nga xam ni. Mhm. sunu naataangoo yi nekk fële ci IGFM ñoo ko daal di bind ginnaaw ba nu jëlee réaction ki nga xam nag moo di Barthélémy Dias mhm. moom nee na lii daanaka du décision procureur. mais dafa nekk décision ki nga xam ni moom mooy Mimi. comme ni nga ko daal di expliquer Mimi lu mu daal di tekki léegi est-ce que tey jii yaakaar nga. rupture bu ñuy wax surtout si wàllu yoon. xalaat nga ni carrément nguur gi fi nekk dina joxe benn injection li nga xam ne nag mooy le pouvoir euh, judiciaire pour rek nu mën a dal si kaw Bougane Gueye Dany. xam nga pour reprendre les termes de Barth. Mhm. muy Mimi. Mimi waaw gis nga Ousmane Sonko je pense que. Mhm. moom li koy gënal li koy gënal ci moom ci ci ci ci fii ñu jëm. Mhm. baptême de feu bi mu def wala du ma ne rebaptême de feu sax laay wax. parce que def na ko defati ko. bi mu def foofu la ca arena le 17 novembre. Uh-huh. moom defe naa ne Ousmane Sonko day toog ci biir néegam. Uh-huh. naan ngir yàlla ak yonent bi ñii dara bu mu leen dal ba le 17 jot. Uh-huh. Ah, li li mbëri di wax yàlla maa ngi lay ñaanal jàmm di ñaanal sama bopp jàmm ba bés ba. bu nekkoon combat la Sonko loolu la wax gars yi maa ngi lay ñaanal jàmm. di ñaanal sama bopp jàmm ba bés ba. ndax Ousmane Sonko gis na à chaque fois nit ñi moom mu ngi jéem mu ngi leen di jéem a dooleem mu ngi leen di jéema a wan fi ko sénégalais yu toll. mu ngi leen di jéema a wan capacité keroog wax na ba def allusion à ki nga xamante ne moom moo di euh, Bougane. Uh-huh. li ma ko wax daf ne ko. Euh, xanaa kay nit booy topp boo koy topp di tibb tànkam bu wootee arena nga woote arena bu wootee kañoot nga wootee kañot uh-huh. moom mii di Ousmane Sonko loolu la wax loo l'autre fois uh-huh. mais ñi dafa mel ni ñoom ñoom ñoo naan yàlla bu ñu yegg ci la di set Uh-huh. wala man naa fexe ba le 17 man ñu jàpp ma tëj ma wala naa fexe ba la di set coow am ci réew mi. Uh-huh. wala naa fi fexe ba di set ba avant le 17 euh, nit ñi nit ñi xeex wala naa fexe avant le 17 du ma dem ci élection yi. Uh-huh. ñoom Ousmane Sonko dafay fexe di leen neng-nengal di def ay mbir. jàpp nañ fi ñu bàyyi ko bugaan jàppoon nañu bugaan euh, convoqué woon nañ ko fi. bàyyi ko def nañu ay mbir bàyyi nañ Cheikh Yirim bàyyi nañ euh, loolu beneen waa ji. Kader Kader. Mhm. bàyyi nañu ñoom ñëpp ñëpp dellu si jàmm ñu ne waat nangam ba mu leen bàyyee ñoom ñëpp woote sénégalais yi wuyu. Mhm. ñu demaat day mel ni Ousmane danaan yàlla nañ dem ci élection yi mooy fekk ñu ànd ak ñii ñëpp dem ci élection yi. Mhm. même list ñu dem ci list naan ki tête de liste ba normalement bu dee juridiquement parler moom la ñuy wax ne euh, amul droit nekk ci list bi. ñu ne non non ba ñu demee ba conseil constitutionnel conseil constitutionnel dafa ne demul ci fond bi. Mhm. waaye forme bi sax baaxul ndax ka def recours bi war sa def recours bi. waaye bu ñu demoon ci fond bi lan la conseil constitutionnel di wax. Mhm. moom dafa mel ni mu ngi leen di neng nengal chaque jour mu ngi leen di neng nengal di raay. di mhm. def ay yëf juste pour ñu dem ci élection yi ndax bu ñu demee ci élection yi xam nañu wala xam nañu nu mu nar a demee. parce que six mois ci ginnaaw nekkoon nañ ci benn élection te xam nañu nu mu nar ni mu demee woon léegi ñoom. ñoom ñooy ba ñoom dafa mel ni ñoom ñoo naan fexe ay mbir ba ba ba bañ a dem ci élection yi. Uh-huh. parce que yow bu dee ñëw def nga eh, bugg nga bu dee yow élection rek a la ñor. Uh-huh. bu dee yow dem ci élection rek a la ñor boo demee xoolal jàkkaarlook takk der bi bu ne la bul def nangam même boo bëggoon a xeex. Uh-huh. danga naan waaw du ma ko def. bu ñu bu bu bu waaw dinaa ko def bu écran yi ñëwee wala bu caméra yi ñëwee nga ne. li tax pour pourtant tey sax maa ngi woon ci samay droit tey damaa pare woon pour xeex dugg Bakel par force mais xam ngeen li tax du ma ko def ñii dama leen di won sama doole ndax sénégal yee jugé li leen di won sama doole nag mooy comme dañuy dem le 17 novembre élection damay bàyyi ba le 17 novembre ma won leen sama doole tey dew ma Bakel damay delluwaat ndax élection yaa ngi ñëw te bugguma dem kaso bugguma dara damaa bëgg def sama campagne dem ci ay élection mais bu dee yow da yaa ngi fexe pour ñu jàpp la chaque jour nga def benn mbir boo xamante ne pour ñu jàpp la la ñu dem ba benn yoon am. Uh-huh. mbir am yow nga bëgg def sa benn résumé bu ndaw. Uh-huh. sànni ko ci benn waay ne benn waay jooju moo jox ñu jàpp diw. Uh-huh. mais waay jooju ñu jox mu jàpp diw. opinion bi man je parle des sénégalais sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk seen kër ñoom ñooy voté ji. est-ce que politiquement parlé am na lu waa jooju moom mu tuddee Mimi. li Barthélémy Dias wax est-ce que. Bougane am na popularité. wala am na euh, je sais pas représentativité boo xamante ne am na lu ñu koy ragalee dara sur le plan politique. sur le plan politique bu dee politique dong la ñuy wax lan la Bougane am. loo xamante ne war na mën a tax ñu état di dal ci kawam lan la Bougane am loo xamante ne war na tax euh, vraiment ñu ñu ñu ñu ñu ñu tere ko wala ñu tëj ko wala bu mu bañ a dem kaso lan. Mhm. Bougane on se rappelle parrainage pour mu ko doon jàll se tout un problème mhm. defe naa ne bu sa Bougane musul jàll parrainage mhm. bu saan Bougane musul gagné mairie bu saan Bougane musul doon maire mosul doon député musul je sais pas lan la fi def loo xamante ne war na tax politiquement ñi ragal ko wala ñu dal ko loolu dafay doon benn argument boo xamante ne peut-être fa la ñuy bëgg a yóbbu mbir mi mais c'est à l'opinion euh, c'est à l'opinion de juger ça sera à l'opinion de leur juger ndax nit ñi gis nañu xam nañu xam nañu doole yi bu baax ñaari doole yi est-ce que méngoo na wala méngoowul. nit ñi xam nañu. maintenant parfois sax débat yi ça ne fan ça ne vaut pas la peine mais tu es forcé parler. Euh, parce que loolu mooy def actualité te sénégalais yi ñoom ñoo lay topp war nga leen yee. war nga leen gindi euh, ci seen i mbir. mais lenn mooy am bu dee ñoom topp nañu wax jooju wala ragal nañu wax yooyu. ba tax ñu interférer ci benn mbir. ne diw bu leen ko def nangam. ba euh, ndax bu ngeen ko defee nangam nit ñi dañ naan du politique politique bee tax wala ba tax ngeen bàyyi ko foofu la état bi échoué. Mm-hmm. beneen tamit état bi day échoué bu doon nee na ko def leen ko nangam ndax duñu ñu bu mu dem ci élection yi. Mm-hmm. ñaari cas yépp bu ci état bi def état bi dafa échoué. bu dee jàpp leen ko mhm. dafa échoué bu ne bàyyi leen ko dafa échoué parce que ci dëkk boo xam ne la ñu nekk république ñu ne dafa am séparation des mhm. pouvoir pouvoir euh, judiciaire bokkul dara ak pouvoir bi nga xamante ne moom la Bassirou Diomaye exécutif am mhm. donc Bassirou Diomaye lii taxawaayam wala lii taxawaayu Ousmane Sonko mooy neutre ci mbir mi bu ñu ci yëy bu ñu ci yàbbi la nga xamante ne moom la yoon war a def ki nga xamante ne Bougane Bougane Gueye Dany moom yoon def ko ba mu mat sëkk sans am dara loo xamante ne da ko ci sóoraale. li Barth wax nag c'est très facile parce que munoo ànd ak nit moom Barth bu doon bëggal na Bougane jàmm. lan lay def woo ko ne ko kat saa waay yow man dafay mel ni Ousmane Sonko sax. Mhm. moo gën a bëggal buggaan jàmm que Barthélemy Diaz. waaw Barthélemy Diaz ah, war na xoolaat bu baax. Mhm. Euh, non non Bougane Gueye Dany war na xoolaat bu baax kan lay àndal. Mhm. parce bu dee dañoo gis. Euh, Ousmane Sonko ñu gis la vidéo de Bassirou Diomaye Faye uh-huh. mu ne nangam période nangam ba ñu fa toorlee buggaan dugg Bakel. Uh-huh. Euh, Ousmane daf ne ko woo ko ne ko génnal te xam nga ne buggaan ngay dani bu bu normalement euh, Barthélemy Diaz Ousmane Sonko waru ko ëpp expérience ci politique. Uh-huh. Ousmane Sonko war waru ko gën a xam méthode de combat normalement. mais bu dee yow Ousmane Sonko woo na la ne la demal. kii ñëw bàyyi la seetaan la. nga dem def lu la neex. Mhm. def ay mbir ba ñu jàpp la mu ñëw ba te ba mu ñëwee sax au lieu mu apaiser yaa ngi may dégg parce que téye nañ la ci benn dëkk au lieu mu apaiser situation bi wax ak waa dëkk ba saafonteeg waa dëkk ba. Mhm. yaa ngi may dégg bu ko defee ñu mën la euh, may ndox may la ay ndox yu sedd. tibbal la ay añ tibbal la ay ceeb. Mhm. parce que dinañ ñëw ne kii de seen tête ba mu ñëwee nekk na ci jàmm mais kooku ñëw fekk la ci situation ba pare di créé waat beneen xeex ci sa ginnaaw. yeneen xeex di saaga ndey ay ay nit yi fa nekk. kooku est-ce que bëggal na la jàmm. Mhm. est que bëggal na la jàmm euh, carrément. Mhm. bugaan bu génnee ci lii war na seet ne man ñi may àndal est-ce que jàmm lañ ma bëggal. Mhm. parce que bu dee ñoom ñooy les politiciens. bu dee Thierno Bocoum euh, bu dee Anta Babacar. bu dee Pape Djibril Fall bu dee Barthélémy Dias bu dee ñoom ñooy les politiciens. man mi nga xamante ne juste benn sénégalais boo xamante ne dama yor sama entreprise. Mhm. jékki-jékki gis lu ma neexu ci dëkk bi ma ne xaaral ma ñëw xeex ko xaaral ma ñëw kaas ko bu dee ñooñu. Mhm. def nga say mbir ñu seetaan la bàyyi la ci biir ba ñu jàpp la tëj la. Mhm. te pourtant am na keneen koo xamante ne yàgg ngeen laale ci ay jamono. yàgg nañoo dal ca kaw ci ay jamono. yàgg ngeen sax am ay jiixi jaaxa kooku ba nga naree def lu mel nii daf la woo. jël téléphone am woo la. ne la saawaay kat lii bu ko def parce que nangam ak nangam mën na la cee fekk. Mhm. yow ñii defaluñ la loolu woowuñ la artuwuñ la defuñ la dara ñu bàyyi la ngay jaay guerrier. Mhm. ba ñu dal sa kaw ñu ñëw ci sa ginnaaw dafa fa ay attroupement dafa fa créer ay xeex. loolu nga xamante ne peut-être sax tem mu gën laa dugal. Mhm. ah bu yàggee moom bu génnee war na bu vraiment xoolaat. Mhm. li nga xamante ne moom moo di euh, entourage am. exactement mhm. euh, coow loole sax dinañ si euh, dikkaat baax baax yaa ngi koy junj mais Vito. li ma bëggoon xam mooy lan mooy réaction wu li nga xam ne nag moo di sénégalais bu fekkee dañoo dem ci jour vote ba xool li nga xam ne nag moo di bulletin wu kii di Bougane Gueye Dany gis ni kat carrément kii ñu ngi koy ñu ngi koy voté waaye ma nga ca kaso ba rek nu koy daal di dàq dàq ñu si bëri. Mm-hmm. Euh, ñu ngi doon wax boo moytuwul euh, euh, sénégalais yi dinañ daal di vote ndax dañuy am yërmande ak ñëkk ci koo xam tey jii ñu ngi koy votel waaye ma nga ca ca ca kaso ba tey ji mm-hmm. lan moo war doon appréciation li nga xam ne nag moo di sénégalais yi. Mm-hmm. ci élection législative yi ñuy daal di dëgmal. saa sénégalais yi dañu xam dëgg. sénégalais yi xam nañu dëgg. ñoom ñoo yor seeni téléphone ñoom ñoo yor internet ñoom ñooy seetaan ñoom ñooy juger ñoom ñooy voter ñu ñu toog ci kanamu caméra yi di wax. wala ñoom ñi nga xamante ne yàlla daf leen natt ñu nekk di nekk sur le terrain politique yor ay parti politique. bu ñu yaakaaree ñun ñoo gën a muus sénégalais yi. saawaay ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ci erreur bu mag. sénégalais ñoo la gën a yeewu. ñoo la gën a xam ñoo la gën a xam ki nekk ci yoon ñoo la gën a xam ki ñuy jaay doole. ñoo la gën a xam ku nekk di def li ko neex Ousmane Sonko pourquoi son cas. était. Euh, mu génn ci ordinaire bi. li tax ñu ne kaawam euh, day génn ci l'ordinaire mooy ñëpp dañoo xam ne. kii li ñu ko nekk di teg du yoon. ñëpp dañoo xam ne kii dañu ko nekk di jaay doole. ba pare Ousmane da ko prouver parce que dafa ñëw élection participer élection. je je pense euh, deux mille dix neuf. deux mille dix neuf jël troisième. dem député jàll plus forest. avant deux mille dix neuf euh, ñu dem ci élection. mu jël troisième. loolu mu nekk euh, koo xamante ne dafa nekk ci politique di màgg. mu nekk ascension ascension boo xamante ne leer na nit ñi ne ku jógee ci plus forest dem ci député euh, non ku jógee ci plus forest dem ci jël troisième ci ay élection présidentielle boo yeggee euh, deux mille euh, vingt-quatre normalement normalement war nga Euh, war nga peser ce poids. te war nga am benn représentativité boo xamante ne Sénégal ba pare euh, ñu gis ko. Mhm. que mu nekk dans la diaspora. Mhm. que mu nekk fii ci biir Sénégal que mu nekk feneen ak feneen. Mhm. Ousmane Sonko et devenu un la là euh, l'histoire d'Adji Sarr est en deux mille vingt et un. gën a conforter sa position. yeneen ak yeneen yi nga xamante moom mooy am. mu doon benn élan de solidarité boo xamante ne. Uh-huh. nit ñi am nañ ko par rapport à sa personne. Uh-huh. parce que jàpp nañu ne kii dañu ko doon jaay doole. Uh-huh. kii dañu koy jaay doole faaw ñu fipp jàppale ko ci loolu. ba pare nag jaay doole bi li tax mu waral ko set c'était pas sa personne. li tax sénégalais yëpp wuyu ko parce que nekkul moom moo fi gën a rafet. nekkul moo fi gën a beau. nekkul moom moo fi ëpp xaalis nekkul moom moo fi dàq maye xaalis parce que moom sax du maye xaalis dañ koy maye xaalis. Uh-huh. nekkul lenn loo xamante ne politiciens traditionnels yi dañ ko doon def mu ñëw di ko def. Uh-huh. ñu ne lii moo tax mais déedéet Ousmane li tax nit ñi jàpp ko nee nañ ne kii de bu ñu rëccee. Uh-huh. am na benn vision bi nga xamante ne indi na ko am na benn projet bi nga xamante ne teg na ko ci kaw table bi. am na benn euh, ambition boo xamante ne animé na ko moom en tant que jeune bu ñu ko toppee kat. lu baree baree bare loo xamante ne am na ci biir réew mi dina fi jóge uh-huh. lu ñu mel ni ndóol lu fi mel ni euh, soumission bi nga xamante ne soumission soumissionné nañ ko ci biir kanamu euh, français yi uh-huh. li nga xam ne yeneen ak yeneen yoo xamante ne espoir boobu moom animé na ko mu yee ko léegi nag day jàppal day am ñaar uh-huh. tooñ bi ñu ko tooñ ñëpp bëgg koo jàppale am beneen ñaar projet bi nga xamante ne yëkkati dina ko sénégalais bëgguñ mu rëcc leen moo tax ba ñu ko jàppee moom mu mu mu différent Uh-huh. ñëpp jàpp ne kii même bu nekkee ci kaso ba bu ñu demee élection dañu koy dañu koy voter mu gañ koy voter léegi nag le cas Bougane Gueye Dany est-ce que uh-huh. li ma lim yëpp mu ngi ci Bougane ban projet la yëkkati boo xamante ne dafa animer nit ñi uh-huh. Bougane ban ambition la réveillé vraiment ci kanamu nit ñi ba nga xamante ne nit ñi nee nañu Bougane bu ñu rëccee lii dootuñu ko am Bougane ban tooñ lañu ko tooñ boo xamante ne leer na nit ñi ne Bougane dañu ko tooñ bëgg koo jaay doole ñett yi yëpp amul ah ci man. Uh-huh. gisuma ko boobu ñeneen ñiy seetaan tamit mën na noo juger. Uh-huh. bu dee Bougane dañ koo tooñ wala Bougane dafa indi benn projet wala Bougane da dafa peut-être doon benn je sais pas xaw ma troisième bi sax euh, lan laa waxoon rek. ci dama uh-huh. mais bu dee ñett yooyu yëpp amut. te mu nekkoon ci kanamu Ousmane Sonko nekkul ci kanamu kii amul différence. parce que am na yenn taxawaay yoo xamante ne boobu boo ko taxawee nit ñi sax dañuy am fierté. bu ñu ñëwee fekk sa bulletin romb am na benn taxawaay boo xamante ne boo ko amee. nit ñi mhm. dañuy rus sax romb sa bulletin parce que loolu yëpp li ngay ji askan wi la. Mhm. loolu yëpp li ngay wane la loolu yëpp taxawaay bi ngay am par rapport ak opinion bi. parce que mhm. nit ñi dofuñu ni ma koy waxee encore une fois personne ne peut les mënoo jël say mbir créer say événement ba mu nangam ba pare nga yaakaar ne. di nga ci am loo xamante ne waruloo ko am saa mënut nekk c'est pas possible. gars bu ñu rombee sa ci biir vote ba que téye la faak que ñu ñàkk la yëpp. amut njariñ parce que la animé woon kële ba nit ñi di rayante moom phénomène yuy dajale woon ci Ousmane Sonko benn sax phénomène amul ci yow. Mhm. parce que bu dee da nga tooñ nit ñi dinañ gis ne sénégale yaa ngi seetaan vidéo yi. Mhm. ki tooñ ak ki tooñul xam nañu. bu dee yow li nga wax ne am na parce que nee na les forces de l'ordre mhm. ont pris euh, nee na moom bi muy dem euh, foofu lee ca. Euh, Bakel Bakel. président bi ci jaww ji la nekkoon. président avion la jël. moom muy jaar ci suuf kon moom ak président laale woon laale dara mais imagine mhm. mais président bu nekkee ci jaww ji yow nga nekk ci suuf tamit mhm. même lieu ba ngeen di dajee waaw ah, même lieu la moom même lieu bu mhm. nekkee danga nga nekkoon Bakel président quitté Dakar yaa ngi dégg quitté Dakar nekk euh, palais jógee fa di ñëw ñu ne la saa kat président quitté na Dakar bàyyi ko ba mu yegsi nga soog a jàll mais yow bu dee da nga sentiru ne dañu la tooñ wala nangam am na ay voies de recours yooyu def mais bu fa di xër-xër di rayante di wane na dama jaay guerrier wala nang saa yi tollatuñu ci jamono joo xamante nit ñi dañuy jaay guerrier uh-huh. tollatuñu ci jamono joo xamante ne nit ñi dañuy jaay raye ci jamonoy diplomatie la ñu toll. exactement jamonoy naxante ba am li nga bëgg. Mhm. mais bu dee li ngay bëgg da nga naan par force tay tay lay am wala par force tay tay laa koy def wala par force tay tay lay nekk. Mhm. waaw yow rek yow yaa ciy pâtir. vraiment dina dina dina dina xaw a doy bu baax alors mhm. euh, Vito. Euh, sànq yaa ngi junj euh, taxawaay bi nga xam ni Barthélémy Diaz am na ko foofu ca ca Tamba. ginnaaw ba nu placé sous mandat de dépôt ki nga xam ne nag moo di Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp gis